di jiital si ziar bi ak nuyoo bi sëriñ Serigne Touba Serigne Mountakha sunu borom yàggal ko fi loolu tam ànd wér ba lépp li nga xam ne mun na ko liggéeyal maam ji ak baayam ba Cheikh Amadou Bachir yàlla kàrt na ko ko tam ànd ko ak donga yëpp si teyaay teyaay bakkanam di ko ñaanal di moo Modou Mbenda yàlla yàggal ko fi loolu te wér waaye di beral ziar ak nuyu ak ñaan sunu wasila sunu xarit sunu sëriñ Cheikh Abdou Karim Mbacke moom Serigne Fallou waaye di sunu jëwriñ Ibrahima Mbeng borom liggéey bii di KMT. waaye gis nga liggéey bi ndigal lii sëñ taxa eh, jox dongo yi Baay Faal yi kuréel lii kenn ku si nekk ñëw def si sa pas-pas ñenn ñi ñëw fi ay 5 heures du matin 6 heures du matin ba nga xam tey biir barab yi boo ci duggoon tey am na jëmm yoo xam bu nu góorgóorlu tuut du nu am lu liggéey te loolu lépp ñi ñu koy defal nii di leen yeesalal ñun ñëpp kenn jomb si kenn waaye yàlla nañ fi suñu borom yàggal te nu ànd ak wér di ko liggéeyee waaye sëriñ tamit ñu ngi ko siy profité di ko ñaanal mu dund téeméeri at yu tàmbali tey di ñaanal dong yi nga xam ni euh, pas-pas gii ñu am tey sëriñ bi joxe ndigal ñu namm seen xel mu sell yëkkati seen ñaq ku si mel ni jëwriñ jeeri jëwriñ Pam Ndiaye ñu koy ñaanal moom tamit suñu borom defal ko xéwal gu yaatu yaatu waaye lépp mu jël ko teg seen loxo jëwriñ jii di Matar Matar nekk féete Mbacke benn kuréel la bu nekk kër sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall waaye Mbacke lan féete woo euh, waaye ñuy def yu mel nii di si roy maam Cheikh Ibra muy dawe ndab xam nga tey mbooloo mi ne fii si biir nga làqatu si ginnaaw tabax si ginaaw tabax yi fii nii maanaam di leen bettee ay xéewal ngir maanaam ñu xewloo ko ngir ñu gën a mën a nekk si liggéey bi waaye loolu lépp sëñ Abdou Karim sëñ Fall moo na ci nàmbatal ndax dongo yi ku leen gis ay ndaw lan lii ni xéwal yee yaatu lool boole si ay boisson ay ndox ñu yeesal barab yi te ñii ñu leen kay yeesalal tey bu ñëwaatoon jamono tey lu raw lii mën nañ bëgg nañ koo def ndax dëkk ba nu jëm muy ëllëg lépp loo xam ne liggéeyoon nga ko fa rek boo tëddee si biir suuf di nga di nga bëggaat ñëwaat si àdduna bi ngir liggéeyaat lu raw lool. waaye ñu ngi ñaanal jëm yi nga xam ni ay tu tànk lan boole seen alal soxna yi togg togg bi ba mu neex góor yàlla yi yenu ko indi ko fii lépp luñ si luñ si luñ si yaakaar rek yàlla na suñu boon defal lu fooxo lool. télé bi tamit di Touba Vision bi suñu borom doon defal leen ñu nekk ay télé yu yaatoo yaatu yaatu yaatu te mu dëppoog bëgg-bëgg sëriñ bi sëriñ Mountakha ñu ngi koy ñaanal baax a baax ndax lii lépp muy def mënoon na ko def mënoon na ko def defal boppam waaye mu jël ko teg si loxo yi maam Cheikh Rahane Fall ndax sëriñ Touba Cheikh Fall la fi ñii tamit maa ngi leen di ñaanal man si sama bopp yàlla naa mel ni ñoom ndax ñoom de. rusloo wuñu sëriñ bi te liggéey bi tàmbali woon ko fii de yaaram kër sëñ Touba Guèye sëñ Mountakha teewoon si loxo sëñ du Mawla Mbenda muy Mbàkke nii lañ si doon jëfee di togg ay ndab ajuma ju jot di ko yóbbul sëriñ Cheikh njaaye Ndiaye Mbenk yàlla na yàlla yokk ay leeram waaye li si gën a doy waar te gën cee baati ne mooy keroog bi sëñ Abdou Karim Mbàkke mu sëñ Fallou jugee Ndindi dem di siyaare ji kër ga dem di sa liggéey ba dañ ko. sa sa jëf ñëw na fi bu yàgg te egsego ndax sa waakar ajuma jot ñoo fi indi añ loolu sedd xolu sëñ bi lool ñii nii maa ngi leen di ñaanal yàlla nañ gën a dëgër te yàlla na nu mucc ci pexem saytaane ak pexem noonu ndax liggéey bi dafa sedd xol lool ñoom fu nu mën a nekk man maa woon ci biir liggéey bi ba nu toggee xewal ba ñëw dana ñëw ni ma joriñ kaay gis liggéey bi yow lan ko defal man leen déet sëriñ bi ngeen ko defal waaye loolu yëpp seen xel mu sell man nag maa ngi tuub ñëpp nag tuubal ñëpp ndax kàddu yi ma jël nii damay nam na bi rek ku dégg kàddu yi sax xam ni kàddu daanukat la rek ndax sama xol moo sedd te xol bu sedd rek doy na ñaan ñi ngi ñaanal ñii si barab yi yàlla na suñu borom gën a yeesal yërmande si biir suuf te ñun tamit ñun ñu fi des yàlla na ni yàlla may wér ak kattan ñuy jëfee ndigal di moytu ay tere sunu borom may ñu wér ak kattan boole ñu si multimilliardaire Serigne Touba yi ngir ñu mën di mën lii saa su ne ñuy ñaan lii ñu nag muy màggal Kazu Rajab yàlla buñ si kenn man ndogu yi yàlla buñ si kenn man ndigal lu ñëw rek yàlla nañ fekkee am si wér ak kattan ak xéwal gun si jëfal euh, sëñ Tuubaa maa ngi tuubal ñëpp nag jëwriñ ji mi ngi tudd Matar moo nekkal moo nekkal sëñ Abdou Karim Mbacke Mbacke ca liggéey Mbacke am di Moussa mii nga xam ne moom boo nekkoo jàkk xam ne Baay maanaam ñu topp si ginnaaw Matar ni ko dan rek man nag lii lépp nag defaluñ ko kenn ku dul jëwriñ ji nu sëñ bi booleel muy Ibrahima Mbengue ndax ñoo fi nekkal ndax sëñ bi moom lañ teg si loxoom waaw lii lépp nag xel mu sell yii yëpp ñoom la waaye jëmm jeen ñu bëgg euh, suñu borom defal ñu ko nag muy Pape Ndiaye mais waaw barkis maam Serafal Pape Ndiaye mais nga xam ne moom day boole day jël ñaqam saa su nekk waaw moom nag jëf yi sax bu dee def du bëgg sax feeñ waaye nag yàlla na suñu borom defal tawfeex rek si bàkk maam Serafal